ci 16 février tombe nag ak li di mardi gras yenn école élémentaire yi daan ko feete waaye ren nañ ko amalee wute lool ak na mu daan demee li ni mel nag dara waralu ko lu dul feebaru coronavirus ci noonu daal di nañ seeti école élémentaire bi di Saint-Pierre Julien et Marc daal di nañ fa fekk ki nga xam ne moo di directeur bi di Pascal Tine ñu daal di teewlu kàddu yi. organisé. C'était devenu, c'était inscrit dans notre calendrier. Le Mardi Gras aussi, ce n'était pas pour nous juste le défilé ou de se déguiser. dañu daan xool benn thème boo xam ne dañ ciy sensibiliser xale yi euh, dem nañ fi une fois nettoyer ji la police euh, quatrième arrondissement euh, le commissaire qui nous avait gentiment reçu avait aussi parlé aux enfants les a remerciés dem nañu gisi aussi le le père de Saint-Joseph de Médina demoon aussi seeti limaam noonu dañ daan faral di ko dérouler ci euh, Mardi Gras yi dinaan daana doon am ambiance et défilé caravane carnaval mais loolu yëpp ren mënuñ ko def ndax feebar bi lëmbe réew mi tax na ba ñun ñëpp ñu fexe loolu luy regroupement yu bëree bëri noonu xale yi di saafante di laalante ak yooyu ñu daldi koy ñëw ak moom ci euh, dajaloo bi nga xam ne ndaw yi dañ koy dajaloo ci boobule l'école waaye directeur bi la daldi xam ne rek moo di ñu ngi def seen ként lay kàttan ngir rek aar tout tànk yooyu ci bile feebar. yombul moom si on dit la vérité yombul ndax xale naturellement c'est un enfant toujours en mouvement l'enfant est toujours en mouvement bu nekkul mouvement rek mooy kenn kenn kontaan mooy def feebar sa warul ainsi de suite mais euh, école moom dafa doon loo xamante ni dafa ci dundu xale yi donc il def tout pour xale yi jàng si euh, métti na temps yi surtout que ñun léegi amatuñu droit permettre sax xale yi ñu bu ñu duggee dañoo war a toog ba ngoon jot donc loolu la euh, loolu lañ jotoon ci suñu kilifa yi waxoon ñu éviter les va-et-vient dès que l'enfant rentre dans l'école il doit rester à l'école donc ça va demander beaucoup d'efforts parents yi dinañ ay seen comment dire fexeel ay añ ay repas froids ay casse-croûte xam ne xale dañ koy indaale ceux qui sont inscrits dans la cantine aussi mangeront la cantine dina laajaat effort yu bëri ci ñun personnel bi ndax il faudrait que ñuy surveiller xale yi ñu fexe ba ñu octobre mais avant déjà ça ñu ngi leen doon laver les mains di jënd ay gel financièrement aussi c'est en coût donc euh, vraiment mbas mi mu ngi mais encore une fois on est obligé de veiller sur les enfants qui n'aiment pas tellement porter les masques qui ne sont pas peut-être tellement conscients de, l'importance du masque donc il faut toujours le répéter porter les masques récréation tey moom mooy comme ci biir kii bi ak yeneen enseignants bu doon porter c'est un peu difficile, mais on essaie de gérer cela. Il y a le est venu là-dessus, suñu directeur Georges ñu ngi koy fàttali ñun aussi ñu euh, euh, ñu Félix Mendy Félix Waly ñu ci wasu suñu yi macha allah aussi il a toujours un groupe qui est devant qui accueille vous avez vu les barrières on demande aux parents même si des fois avec certaines grandes personnes parents yoo xam boo leen waxee raxasu rek ñu a bëgg gis seen bopp mbaa laal gel bi ils ont le choix de ci noonu nag daal di nañ àddu rek ci jafe-jafe yi nga xam ne ñenn ci école katolik yi dañ koy jànkonteel muy problème des voiles ci noonu nag kii di Pascal Tine moom la mu xam ne rek moo di Saint-Pierre Julien et Marie école boo xam ne la amul xaj ak seen ñoom ñëpp ab benn famille lañ. ndax la dañu bëgg xale bu nekk ba na wone une distinction spéciale. ay xale yu doon dans le cosaan peut-être dañu daan léttu sax wax nañ leen waru leen léttu di ñëw école le chrétien aussi ne doit pas peut si c'est une jeune chrétienne qui veut être religieuse demain peut-être mettre son voile nekk le musulman aussi viendra ici comme s'il était juste un membre d'une seule famille amuñu fii musulman ak chrétien te bëgguñu lépp lu koy fësal bëgguñu ko donc bokk na ci suñu combat boo xamante ni bëgguñu indi dis comment spéci comment ñu koy waxati stigmatisation. xale yi ñoo bokk fii seen fii suñu école ñoo bokk ndey ak daal man mii di wax ak yow je suis catholique sama def naa accident ak sama jabar c'est parent d'élève moo doon assister sama jabar sama dëju paa ñoom ñëpp taxaw ah dugg église ndax benn enseignant moo man dem naa aussi ci ay enterrement euh, d'enfants musulmans ou bien de parents musulmans amuñu rek problème boobu à Julien ngi ci sant yàlla parents buñ ci waxtaan eh, dina comprendre mais l'enfant peut porter le voile dès qu'il sort amuñu problème quoi parents yi sont compréhensibles et ça se passe ndogal ba nga xam ne gouvernement bi jëloon na ko. muy rek journée continue yi moom nag lam ci xamle rek mooy ñu ngi def seeni i kémti lay kàttan ngir rekk wàññi li nga xam ne moo di déplacement wu ndaw yooyu di jànge ci boobule l'école on a beaucoup changé les choses on est obligé je de vous dire que les enfants devront rester à l'école les va-et-vient li gouvernement bi bëgg rek mooy jaxasoo vient jaar ci mbedd yi laal marchandise laal lu nekk mën na indiwaat ndox mi loolu rek la woon je pense que l'idée était noble ñun ñu ngi ciy a def lu ñu peut-être que quantum euh, horaire bi aussi ñu ngi koy xoolaat mais ñu ngi jëf ñun ñii ñii bind nañ ko pour ne ko nii lañ bëgg a doxale te moom elle est très compréhensible bëgg na mais lu mu bëgg ñun ay ndawam la ñu dañu war a respecter yéen ce n'était pas lié à 14 heures c'était éviter les va et des élèves à n'importe quelle heure, les parents d'élèves. Ñun nag on doit suivre et on suit de notre manière à notre manière nag xale yi parents yi et tout mais je pense que ñun ngi jéem a def tout pour comprendre l'esprit bu ñu ko waxee te dinañ ko jéem a topp jërë ngeen jëf mbokk téléspectateur Equivox TV fii la ñuy daal di yëm ak yéen di leen jox rek dig daje beneen yoon